مويدا غيبند بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همة لمشة الذي جمع مالا سانوش تيمي أكوى بن وينك تكاو خبي دغور غيبند خب كيسان خبي دغور بن خبوني غبندتي غبندتي ويل لكل همة لمشة الذي جمع مالا غيبند بسان خبي دغور يب مات وتدفنه في البيت يدعي كالناش كالنمل rasul ko ci sa kër wala yow ci sa place wala kenn ku ne jotaay bi nga bëgg mbooloo ji dafa dëkkal rek gasul ko bu neexee suñu borom bépp jaaykat bu ko def suñu borom dina ko dina dina ko dimbali ba nit ñi di ñëw ba mel ni xorondom insha allahu taala ci place am